maam Góor Aaj mu ngi judd le 3 mars 1988 ci dëkk bu sell bii di Touba maam Góor Aaj mi ngi cosaanoo ci dëkk bu ñu naan Njool sa xombal yaayam mi ngi tudd Maguette Niang papaam mi ngi tudd El Hadji Balla Aaj maam Góor Aaj mi ngi jàngee altu mu ngalam doon ku yàgg liggéey doon itam ku ambitieux ku am fulla ci boppam. mi ngi gëstu métier bu njëkk muy menuiserie métallique ci atum 2007 ci la commencé dugg ci li nga xam ne moom mooy wàllum business auto ak ay pièces détachées pour wut ci am ak wéyal li nga xam ne moom mooy yëngu-yëngoom bu njëkk maam góor aaj mën nañoo wax ne li ko dugal ci politique du hasard ginnaaw bi nga xam ne président Abdoulaye Wade dàq na ki nga xam ne moom mooy Macky Sall maam góor aaj ànd ak leader bii di Moustapha Cissé ngir jàppale ki nga xam ne moom mooy président Macky sàll ba li nga xam ne bëggoon nañ ko mu mujjee am muy président Macky sàll jël réew mii di Sénégal ginnaaw bu mu wéyee lépp liggéeyam ak Moustapha Cissé Lo ba ci atub 2013 ci référendum yi ñu mel ne lu xaw a réeroo mu ber daara boppam kere yi ab mouvement tuddee ko mouvement de l'émergence Euh, maam góor aaj doon koo xam ne si nii toujours dafay déterminé àndaat ak leader bi nga xam ne si nii moom mooy son excellence Pathé Diakhaté képp koo xam ne bëgg nga ci yeneen i leeral mën nga ko xaar ci janoo bu muy amal ak Ndeye Thiam Saliou ak koor gi. jaa ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bi porte bi jàllee noonu ngeen koy ànd ak Ndeye Thiam Saliou mu ñëwaat ci seen émission koor gi ak Ndeye Thiam Saliou mu leen koy présenté saa su nekk ak ni ngeen ko bëggee ci site bi nga xamante ni si mooy seen site bi nga xamante si mooy mourides point info tey nag sama invité kenn du ko nattable muy Mame Gor Athie ginnaaw bi ma ko nuyoo ba pare maa ngi koy jaajëfal di ko bàyyi mbokk téléspectateurs yi waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi ñaanal Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal Sëriñ mu yàgg fi lool te wér di rafetlu seen sit bi ñu naan Mouride info di rafetlu liggéeyam ci département bi ndax wax dëgg yàlla ñu koy ñu koy siiwlu bu baax di ko xool macha allah macha allah. jërëjëf sëñ Maam euh, présentation bi am na torop am na solo torop Ramadan Mubarak la ñu wax nag ñu ngi ci weeru koor di weeru ngëneel di weeru màgg mën nañ xam naka ngay wooree. loolu moom am na solo macha allah ndax weer wi yaakaar naa dina at ñu jël benn weer ak jagleel leen ko lu am solo la wante ñun nag dañu ay Baay Faal pare di woor. ndax sëñ Fallou Fallam sëñ ñam di Yacine Fall mooy sama sëriñ sëñ ñam di Yacine Fall sërif Assane maam Cheikh Ibrahima kon kooku yaakaar naa ku génn si Baye Fall gi nekkul ci ki wante nag dañuy def li naan lu baax moom du doy moom si lañu sàkku wante nag lu rafet lu baax la ndax ndog yi macha allah dañ koy toggee njaareem di ko indi Touba gi si ginnaaw si ñam di Xadi Fall di ko ñaanal lool mu yàgg fi lool te ànd ak ak weer. Mhm. ñu gis ni que koor gi na koy ware fii ak njaboot gi ndax waxtu julli bu jotee eh, jumaa ji la gëna a fi ngay jullé wala ngay tok fi ci jiite njaboot gi waaw julli ji jotee nak eh, jumaa ji soriwul mi ngi fi rek naka ñun ñëpp la ñuy jullee beneen bi si tege li ñu waxoon rek naan dañu mësu tok suñu kilifa ko baax gi yalla nako yalla yok li taal ñu ci barké mu ci ñam di yasin sama ben mag woron nii ñu dem ci kër gi sama papa di ko wax naan mom mi da dara naa ko ba sonu wante day woo si ñoom di si làmmiñu boppam ne bu ko tere lu baax du doy seegam lu baax du doy nag kon foofu lañu ko jëlee rek wante du dara nag wante wante sëñ moom waxut kenn ku ko mën na ko def déedéet. Euh, kenn du toog ak ki nga xamante ni si mooy maam góor te waxoo ci li muy yëngatu en tant que homme d'affaires di businessman di yëngatu ci li nga xamante ni si mooy wàllum oto jënd ak jaay lan mën a dugal ci politique. politique moom li ma si dugal lu kii la daal ndax li may faral di wax rek naan man politique defaruma dama politique damaa yàqal woon defaruma ndax yaakaar naa 2008 bi ñuy dàq Macky Sall président Macky Sall Abdoulaye Wade di ko bundu xataal booba 2008 la jamono yooyu bu ma fàttewul booba maa ngi nekk soudeur métallique sax booba nekkaguma ci oto yi boobu après Moustapha Cissé Lo ñëw foofu si encense boobu fekk ma fi affaire bi metti ma daal mu ne ko président mu taxaw ma ne ko man de dama ngaa gis koo xam ne da ngeen koy xoqatal té mo gis ligéem neex ma trop ak noppi ak yarom mu ne ma kan la fekk xamutoon ki may wax mu ko président Macky Sall mu ne ma ah mu ne waaw mu ne ma yow ne dama bëgg ñu waxtaan mu ne dama bëgg nga ñëw kon jàppale ko ma ne ko man moom dama politicien dama ko bëgg rek di ko jàppale ñu rek waan dama politicien après si leen doxee noonu may ñëw kër Cissé Lo ñu ànd samay programme boobu may dem may taal sama oto fu ñu jëm man la woon saa dàgg Cissé Lo ñun doo nga fi yore oto oto bu fi nekkoon rek dañ koo liyee ñom ba jaaj ñom ñoom Matar Diop ñu ñu yoraan general gaay ñu ñoom daa ànd bi ñu après ba président Macky Sall jappalé ko bo metti woon na trop ndax japp na né kër guñu mësa dem yaakaar na duñ joggé ñu né président Macky Sall moy ñew dañ nan dafa señ bi dafa fatu wala nangam bobu gis ko dugal Macky Sall ci kër ak sëriñ boobu yombutoon tay nak duñ nexé ko né mën nga koo xëccoo moom wante booba yombutoon bobu la metti won trop ñu and ak mom bi bobu boobu ba léegi maa ngi jappalé président Macky Sall suma ma sa wax ba légui yaang ci Cissé Lo wala yaang ci benen leader. référendum bi mu jàllee moom defe naa laa kër Cissé Lo jóge ga moom fa jógee nak du lén ndax japp na né ginnaw yalla politique luma ci xam mom def na ci lo xamné ni nii jeune jeune bo xamné dama koy sant bu baaxa baax di ko gërëm da duma jé ba jël micro di wax wala nit ñi di ma xam mom mustapha Cissé Lo moo tax wan na bu mu fa jógee nak la création mouvement bu nan mouvement pour l'émergence ànd doole président Macky Sall ndax da nga amul na métti ci si Lo ba tax nga jóge fa wala. wax na lu ma métti ndax daa am ñoo xam dañoo nekkoon sa kër ga du ma tudd tur ndax li naan lu yàqu problème du amee ñu dem ba réglé ko loo koy tuddaa day yokkaat problème daanaka amul sens wante nit ku nekk du jógee ci mbir rek dara tax mu jóge fa Cissé Lo def ma woon dara wante nag daa am loo xam ne nii mënu ma koo supporter ndax li may faral di wax naan man maam góor nekkuma politicien boo xam may ñëw di la laaj. man da ngay génn ma génne ma teg si taabal ji segam da ngay génn ma génne nag su ma doo ma bëggee kii nag man man xam naa gëm naa sama bopp mën naa écarté wu taxawee moo tax wantu leneen moo tax ma def loolu. moom nekkoo kenn sa yoonu bopp nga bi bi mu laa fa bàyyi ndax rafet bi mu ñëwee ñoo taxawaloon benn commission boo xam ne nii ay mooy nu mu tëdd sax waa ji waa ji nekkoon si PDS mun ma xam naa tudd tudd daal day jafe daal après bi ñu taxawee ko programme bi. ma ñëw laaj leen programme bi ni mu demee mu ne nii la demee ma taal sama moto fekk leen allié foofu la histoire bi commencé ba ñëwee ñu ne ma yow ay affaire bon de gaz waaw ma ne leen Macky Sall moom bu may jël sama alal di ko def boobu xaw ma woon ne sa dina fallu kon nag segam demee noonu maa ma téye sama bopp looloo waral indi coow li ba léegi. xam na ah, loolu moom xam nga lu war a gaal man moom bët moo ne président day daanu fi ndax gars yi liggéey nañ trop wante président. mi tek tangam tànkam da ko wara a xoolaat si côté ndax japp na ne ah, nit ñi fekke ba nga amagut dara lañu and ak yow di jël sa alal di def si ñom di ko def si yow ba nga falu kon do dem ba yor pouvoir war nga xol ñu topon ci ginnaw jamono ji tay nak do yoré dara ngay gis nit ñi do yoré dara ci ngay gis ñu bari da ngay xam ki la bëgg ak ki la bañ président Macky Sall loolu ko dal tuba ndax japp na ne am na ñoo xam do nañ liggéey. looy fal na président wante am na ñoo xam liggéeyuñu luy fal président lu yàqal président lañu doon liggéey ñoom. Mm-hmm. ni que est-ce que yéen ñi nga xamante si yéen ko nekkaloon fii nii joué wu leen ci nga xamante si moo tax mu perdre fii nit ñi amuñ ci yéen confiance. nit ñi moom ñàkk ñoo am si ñun confiance jàpp naa du fekk ñàkk nañoo am si ñun confiance ma la wax ne président Macky Sall musta gañe Touba gi wante nag mas na fi am doole doole ji ba léegi day wàññeeku day yokk wante wàññeeku wut. wante li ma la waxoon rek naa la leen doo fekkee daal fa nga tegoon solo doo ko tegee soo ko tegaatee feneen di nga gis moom waaw. ñu gis nekk que yi bi yi passé nii di présidentielle yi sa digganteeg maam xarit daje woon ngeen fi ngeen amoon fi coow lu rëy naka la demee woon. waaye coow li moom li ma waxoon rek coow li am na jàll na après ñu romb paas boobu rek après yaa ma gën a xam. dina ma ci ay explication mu leen. tig may politique rek li may faral di wax naa leen moom du fekkee jàppale président Macky Sall ko tax a jóg. même du defaloon nit milliard jàpp naa wërta xool loolu ndax kam ko defal yàqu ko ndax ñun defal nañ Macky Sall loo xam ne nii yaakaar naa moom moom defalu ko woon ndax Macky Sall demee ba falu jëm suñ jëmm jiyee tax mu falu waan doon moom rek boobaa day daanu ndax jamono yooyu da ko doon contre ñun ñu koy fal ba mu falu léegi nag ñu xeex ko ba mu falu léegi moom mu contre ko ba mu ba yëfam daanu mu ñëw jàppaat si ñun loolu yaakaar nañu dañuy yàqal président ñun yàqaluñ président dañuy jàppal président wante li ma la rek Macky daal du bëggee jàpp am gi dara. na xoolaat li muy def. su ma déggee sa wax day mel ni maam xari daf leen a xaw a kii daal bàyyi ba Macky Sall am ndam mu xaw leen a buux affaire yooyu noonu. bëgg a jël pouvoir bi. maam xari moom maam buux moom ndax jàpp naa duñ fi defutoon dara sax mënuñoo buux bañ fi defee dara. Mm. damaa jàpp ne moom day jàppale président mm. xam naa ni mu koy jàppale xanaa di ko ñaanal yàlla rek ni mu koy jàppale mu continuer rek xam li muy def wax dëgg yàlla li may waral di wax rek naan Macky Sall képp ku ñëw indil ko benn nit sax duñ ko ko xeebal dañ koy sant wante képp kuy politique war ngaa xam li ngay def mooy lan ndax politique bi dafa jëru yenn yi daal ñun nag li ma faraloon wax rek laa na ñu ay murid leen ndax dañoo juddu fekk suñuy baay nekk ko suñuy maam nekk ko kon nag duñ juddee dañ ko nekk ñu rawatee nag nekk Baay Faal wante képp ku ñuy topp daal Sëñ Tuubaa la ñuy xool si yow képp ku ñuy topp moom Cheikh Rafal la ñuy xool si yow si wante politique duñu eh, dañuy politique moom. Hmm. mbokk internet yi nga xamante ni si ñoo ngi suivre seen euh, émission bi nga xamante ni si mooy koor gi ak Ndeye Thiam Saliou nii lañ koy woyalee ak yéen ak ni ngeen ko bëggee maam Ngor coow liy lëmbee APR lu ko waral. jool yi xam nga waxoon naa ko avant élection yi ñëw nee leen président Macky Sall waa APR ci boppam ñu opposé wante amuñu opposant ci boppam APR ci boppam doo ñëwagul APR mën ngaa nekk ak ñoom ay waay ak yooyu wante doo xasee dugg dañuy mel ni yow da noonu ñoom daal comportement bi la nag xam naa ndax yaakaar naa bu ma si defee jàngat président Macky Sall loolu su doo koy ñàkkaloo Touba ndax doo xoolee waa APR xaaj bi jubóowuñ dañuy maslaa rek ndax yenente wuñ moom it wax dëgg yàlla yenente wuñ. loolu moo ma jaaxal parce que coow li dafa bari trop kenn yéenewu sa morom dem loolu rek mën na tax Macky Sall perte fi nga xamante ni si mooy Touba. parce kenn dootu ko wóolooti. wante boobaa Macky Sall mu desee am part de responsabilité bu mag ndax jàpp naa ne moom am partem xam li muy def doo jiiteem réew waxuma jiite woo kër am réew nga jiite kon du nekkee benn quartier rek ñoo am problème te mënoo koo régler kon yaa ko chose am na lu xew. mais est ko ñun dañoo créé lu ne créé nañ fi lu ne pour booloo créé nañ fi kuréel gu naan jeunesse la marche ay jeunes jiite ko. ñëpp ñu ne amul leader diw amul leader nangam ñëpp ci bokk yam ban demee ba ci biir ay nit jaar fa yàq ko lu ne kere nañ ko ndaw ñi moom gàcce ma lu ne kere nañ ko pour président Macky Sall booloo wante duñ ko defee ndax am na ñoo xam ne ni booloo da leen a arrangé wu ndax moo leen dundundal xam nga xam ne jaxasoo parti bi nii pëccoxoo bee xiiroo bee ŋaayoo bi am na ñoo xam ne si parti bi looloo leen arrangé ndax si la ñuy dund wante yaakaar naa duñ nekkoon benn ba léegi président Macky Sall day am ndam bi jërëjëf maam góor kàddu yi am na solo trop ndax mën naa xam sa avenir ci politique. ci politique de li ma faral di wax rek naa leen président Macky Sall politique bi may politique ak bi gars yi politique moom bopp man ma ne Macky Sall li ma war a doon du ko waree dof doo koy def waaye du ko war a def mënu koo def te gëm naa ne du fekkee président Macky Sall si beneen beneen président laay amee gis sama bopp si parti bi yàlla suñu borom bind na loolu wan nag yaakaaruma ne moom dama war a topp ci nit rek ñàngari rek gisuma loolu ndax ma Macky Sall ñun dañ ko doon sonni guddeeg bëccëg boobu yorutoon dara moom falu jàpp naa ne fi mu doon yi li ñu lay wax naan dëkk bi da leen a wan ginnaaw man jàpp naa ne wan ginnaaw boobu ñun ñoo ko waroon a wan ginnaaw so wante waruñoo wan ginnaaw ñun. loolu am na solo ñu gis ne que élection locale yaa ngi ñëw ndax mën nañ xam ba xam maam góor ci bëgg na ne conseil départemental bi wala. ah lu baax di ñëpp ko bëgg moom wante nag dama am kilifa il faut ma xaar sama kilifa xawaam fan lay waxee ak fan lay ñëwee daal. kan mooy sa kilifa Pathé. muy excellence muy excellence Pathé Diakhaté. mais am nga yéene bi daal ak mébét bi. déggoo li ma la président Macky Sall fa fa mu toog am naa yéene toog fa man dama bëgg lu baax bëgg a defal sama réew. incha allah loolu am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax sa kàddu tàggatoo. sant rek di sant sama waa kuréel gi nga xam ne tey ñoo may jàpp si liggéey bi ma nekk nii. Euh, di leen sant moom it yéen wax dëgg yàlla liggéey bi ngeen liggéey am na solo di sant ñi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk si parti bi APR ñi nga xam ne samay kilifa lañ ñoo xam ne samay waay lañ si parti bi am na ñoo xam ne yàlla dogalu ko nag wante damay xam ne loolu la yàlla dogal dama leen koy nungul di leen balu di leen baal àq bu baax a baax di sant waa kuréel ñi nga xam ne ñoom laa àndal si liggéey bi di wax ne nag sama bis bii nga xam ne day ñaar fukki fan yi nga xam ne si la maam Cheikh Ibrahima Fall dajewoon ak Serigne Touba mu koy màggal fii le 26. bëgg naa ñëpp ñu ñëw si teew si fekke bis bi ndax diggante maam Cheikh Ibrahima Fall Sëñ Touba kenn waru koo umpule ndax yaakaar naa képp ku jariñ ci yoon rek maam Cheikh Ibrahima Fall a tax kon bis boobu jàpp naa ne maa ngi ciy woo ñëpp di sant excellence Ibrahima Ndiaye nga xam ne tey mooy coordonnateur am di def liggéey bu rafet ci bi maa koy ñaanal moom yàgg fi loolu te wér di sant bu baax di leen gërëm di sant si Abdou Bale yi nga xam ne tey wax dëgg yàlla mooy di si bisam bii xam ne mooy jub si muy laylatul xadar nga xam ne yaakaar naa def nañ ko ay at at yoo xam ne nii di ñaanal soxna Bali nga xam ne tey waajuram yi nga xam ne tey moo fi jógee yal na ko yàlla yokk leer taas ñu si barkeem. jërëjëf maam góor kon xam naa ne bis boobu nga xamante ni si mooy le 26 waa Mouride Info ñoo fay jiitu ci kàttanu yàlla incha allah ñu ngi lay remercier bu baax nag ci émission bi ak yombal gi ak dalal gi ak jàmm ji di la jox dig daje ba beneen yoon incha allah waa Info ñu ngi lay jaajëf lu baax jaa ngeen jëf mbokk yi ni ngeen koy ànd ak Ndeye Thiam Saliou comme ni ngeen ko bëggee incha allah rabbi tey nag suñu invité mu ngi nekkoon maam góor aaj nekk responsable APR e suba allah numéro ci beneen responsable jaa ngeen jëf